Thank you. fii ma toog tey nag dama fee toog toogaayu président national madame Bafou Ba bi jëtti soo ma woo gannaaw yaa ngi fi da fii nekk sama teewaay ndax man maa bëggoon a ñëw waaye dama fan yii dafa am dama xaw a kii tuuti moo tax waaye gannaaw yow yaa ngi fi sab toogaay mooy saab toogaay kon nag euh, man sama toogaay dama koy teg fee moom ci boppam moom mi ne naa ko fi toogal kon maa ngi leen di nuyu en tant que président national Croix-Rouge sénégalaise muy madame Bafou Ba euh, moom mu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax ci moom nee lii nga xam ne moom la fi Croix-Rouge bu Turc andi fii da ci am kontante ba ànd ceeg ñoom ba euh, ndax xem xam na dëkk bi xam na ma ni ko ko mët jo waxee mu yellu ci dëkk bi ndax dëkk bi ñu soxlawoo ko moo tax bi mu fi ñëwee moom Pape Islam nee na moom lii da cee am kontaan bu baax a baax maa ngi di leen xamal ne nag wax dëgg bi ñu awee ci Pape ni ko mët jo waxee rafetlu na ko lool ndax nee na xam na ne dëkk bi ndox manqué na te kon ku képp ku jóg ndax yóbbu ndox cib koñ waa yóbbul nga ko fa ñëpp na moom wax na leen am na ci kontaan bu baax naka noonu it bi ñu awee ca maire fekkuñ ko fa ñu fekk fa sëñ Sidi Mbàkke premier adjoint ak sëñ Birane Gaye ak sëñ àll yu Niang mii ak sëñ Mor wax dëgg yàlla ñoom wax jañ fa wax defoon ko ci bànd teg ko fii dong mooma ci doyoon ndax mënuma ko nettali waaye cant giñ ci cant ak ànd giñ ci ànd ba tax mu jël maire Aliou Badara Niang jël Mor Lo mu yow kàddu commune bi yëpp ñu ànd ñëw kon mel na ni Abdou Lahad na fi bu mat sëkk ndax sëñ Siidee ko fi yebal ci tuur sëñ Abdou Abdou Lahad moom it ñu ñëw fi ñoom it ñu doy sëkk di samay xarit nag di sama lépp kon ñoom it maa leen di sant bu baax di leen gërëm di leen xamal ne ma ñu ngi sa ñun ñëpp ñu ñaan waa Turki ko waa Sarous bu Turki muy ñii fi toog nga xam ne ñoom it Sénégal euh, daf leen kii dañ koo bëgg lool lool ba léegi sëñ Siidee nga koy wax lu bare bari da ngeen ko gis Croix-Rouge di ko joxe ci ci ñoom ci ñoom la jóge ko muy ko Croix-Rouge bu Turc xam nga ko Croix-Rouge moom moom ñoom xeetu arab yi loolu la ñuy wax ñun ñuy wax ko rouge ñoom ñag ñu ànd taqaloo nekk nekk benn jamono yone buñ ne buñ fii ña ca geneen wet kon ñoom ñu ngi leen di sant bu baax di leen di leen amel njukkal sama waa dëkk waa dëkk bopp bii it ñoom euh, sëñ Mawlo waaw gis ngeen ko nii waa dëkk bi ni ko mat jo waxee kenn teewul ñi kenn manqué wut ñoom ñëpp a ngi teew ko ànd ak seen i délégué ci ñu ñëw kon ñoom mënuma ma leen a fay ndax euh, dañ maa jiital fokkatu luñ ma ti lu ma wax lu ak lu mën a doon duñ seet lu ma ci jublu ak lu mën a doon moom ak wet gude dañ caa ànd ak man kon waa dëkk bi mënuma leen a fay yéen ñi nga xam ne yéen commune bi yéen laay liggéeyal ma seede leen ko seede leen sama waa dëkk bi ñi ma nekk fi chef de village <coughs> sant naa leen kontaan naa ci ñoom bu baax sama waa ko waa us yii nag nga xam ne man euh, bu ko waa us dee dox ñu ne ah mbay sàll day ko waa us ba dox na tubaakàlla tubaakàlla waaye ñoom ñii nag ñoo koy doxal nag man fii ma toog laa toog dimuma leen waaye ñoom ñii ñoom ñoom ña nga ne ñu ngi nii bu fekkonte ne soxla woon naa fi ñetti téeméeri ko waa us jamono ji ni melee moo tax ñu tànn ay délégation ñu teew fi waaye woo na yàlla ne bu fekkoon dama dama ne dañ ma ne woon ñëpp ñëw kon mbooloo mii fi toog tey Croix-Rouge mbooloo mun toll dana toogal fii Croix-Rouge loolu ti am na lu ngeen ci xam ndax yaakaar naa woote naa bu yàggut ci Mbàkke ku fa teew xam nga ne Croix-Rouge lu ma soxla ci mbooloo mën naa ko am kon lii ay délégation yo donc ñii teew nii ci Croix-Rouge ñu fi teew ay délégation lu fi teew rek waaye su ma ne woon na ñëpp ñëwit mbooloo mi toll ni mii ñoom danañ toll ne ñoom teew fi kon munu maa ngi leen di sant di leen gërëm munu ma leen a fay ndax ñoom itam ni ma waxee ci dëkk bi dañ maa jiital xëy na dàq maa jàng bari ma ëpp may pexe waaye jéemuñ ci man lenn lenn lenn lenn jéemuñ ko ci man xanaa lu ma nekk ñu nekk ci lu mu ti luñ doxit ci saw ci sama kàddu lañ koy dox ci lañ koy wax bu ñëwee wax ma ko moo tax sama xol sedd na guy may ñaan itam nag lii nga xam ne tey moo ñu fi indi muy ndox mii nga xam ne ñépp dañ koo sopp bëgg ko ndax jamono yi ñu toll dafa tombeek jamono yu manqué ndox ñuy ñaan yàlla na ko suñu boobam def mu mu gàtt ti neex lool ti doy lool bismillaahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp mboole mbooloo mi fi teew ñoo ngi nuyu góor ak jigéen mag ak ndaw di jël di jiital ci nuyoo bi sëriñ Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ak njabootuk sëriñ Bamba képp ak taalibee sëriñ Bamba yépp di nuyu nag suñu baay suñu kilifa suñu njiit muy Serigne mbay Sall Alaaji mbay Sall chef du village Touba Boberèle nekk président départemental bu Croix-Rouge bu Mbacké di nuyu nag de mboolem délégué yi nga xamante ne ni ñoom ñoo nekk fi ànd ci Touba Boberèle di ñu liggéey képp ku wax ndox nag xam ne jigéen moo moom ndox jigéen ñi ñun jigéen ñi ñun lañ ko indil ndax jigéen balaa muy man a set wala muy sell ak yoon borom kër yi mooy tax ñu ñu war ñu di ko def ndax suñu amulee ndox amuñu ndox duñ mën a def lépp loo xamante ne nii moo nu war ay quatrière heures fan yi nga xam ne forage bi dafa xaw a néew doole ay 4 heures la ñuy jóg li ñu war lépp nuñ ko def ndax di wuti ndox kon suñu amee lii dañuy ñaan ci yàlla ak yónnent bi ak Serigne Touba yàlla na bënn te baawaan ànd ak xéewal ak wér ba liñ mën cee liggéey lépp ñu liggéey ko ñi ngi sant nag président départemental bi yëpp yëpp yëpp yi fi teew waa Croix-Rouge bu Turquie ñoom ñi nga xam ne ñoo ñu indi lii di sant xelay Croix-Rouge yi nga xam ne senes Croix-Rouge bii nga xam ne jiitu seen jiit di soxna Debba Diop ñoo ngi koy sant bu baax nag di xam seen taxawaay ci dëkk bi gis nañ seen taxawaay ci dëkk bi gis nañ taxawaayu Croix-Rouge bépp nag surtout nag bu Turquie dañ fi indi ay ndimbar chaque jour dañ koy gis ñun kon ndox bu ñëwee fii ci Touba Boberel ñun jigéen ñi lañ ko indil kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant kilifa yëpp nag di am kontaante ak mbégte bu baax a baax a baax a baax Baye Mbaye Sall loo fi yàgg doyul taxawu nga jigéen ñi taxawu nga ñu taxawu nga ñu. taxawu nga ñu nangoo ñu manqué dara marché baa ngi nii biñ jooyee marché nga ñu defaral marché hôpital baa ngi nii ci suñu tànk léegi jege nañu ndox buñ la ko jooytoo taxaw boo ci mën a taxaw def nga ko ba suñu xel mi ngi dal. kon dañuy ñaan ci yàlla ak yónnent beeg Serigne Touba yàlla na bënn te baawaan xéewal damay jégglu na kàddu yi dama bett ba mënumaa wax maa ngi jégglu baax a baax a baax li ma waroon a wax man la Ndeye Anta Seck Touba Bobareel jiite jigéen ñi Touba Bobareel yi nekk yor communauté départ bokk ci commune communauté yi nga xamante ni ñoo yor Croix-Rouge bii ci départemental bu Mbacké bokk ci yor ci communauté kilifa yi nga xam ne ñoo ànd ak El mbay sàll Sall di ay autorité ñëw fi muy ñu fi teewal Abdou Lahad Ka ndax gis nañu ne Baye Mbaye yitteem yëpp mooy dëkk bi yitteem yëpp mooy askan bi femme de euh, volontaire bi nga xam ne moo doon wax léegi ci turu jigéen ñi mi ngi ko doon wax ci fee yi nga xam ne def nañ ko fi muy case de santé bi bi mu koy tabax moo lijjanti terrain bi tabax ko si doole boppam muy marché bi ak yeneen lépp lu mën a ñor di andi ko ci dëkk bi mi ngi koy def kémtulaay kàttanam waaye nag dafa mel ni fi ne am na ñeneen ñu ko roof doole ngir bëgg ko jàppale muy la maire de la commune de Touba Abdoul Ahad Ka sëriñ Mor Lo ngi nii toog fan yi passé rek am na yu bari yoo xam ne dox na ci biir Touba Bouboural te moom jàpp na ci jàpp goo xam ne ñun ñi nekk ci wetam xam nañ ko bu baax kon dañ koy yóbbante cant ci maire Abdoul Ahad Ka ak mbooleem ñi mu bokkal conseil municipal bi yëpp ndax Bouboural rek la ñu am ku ñu si jàppale ak ku ñu si dimbali loo ñu si def rek dañuy jàpp ne ñun nga ko defal parce que ñun fii rek lañu amuñu feneen kon di sant tamit préfet départemental bu Mbacké ndax Croix-Rouge Mbacké lépp lu am fii tey mën nañ ne euh, njàppandal ak dimbalam la ndax lépp lu dugg si département bi dafay jaar ci moom bu fekkee d'accord du jàll kon lii bu ñu ko amee nañ ko sante la préfet ak le sous préfet yi di ndaam ñoom autorité yooyu dañu jàppale Baye Mbaye jàppale goo xam ne ci saayir la ak ci baatin ba nga xam ne lépp lu mu bëgg ci dëkk bi dana ko mën a am kon ñoom it dañu leen di sant bu baax a baax di yubbante ay cant ci kilifa yooyu dañ leen xamal ne Baye Mbaye mooy suñu kilifa mooy suñu leader mooy suñu lépp képp ku ko jàppale rek fas nañu yéen a taxaw jàppale la te lépp loo nekk ñu ànd ci ak yow di sant aussi croix départementale bu Mbacké xale yi ñoom ñëpp les femmes volontaires xale yi nekk en cours formation élèves yi yi Baye Mbaye dafa waxoon ne ak contexte bi ñu nekk bu ñu mobiliser yenn mbooloo yu bari yi ndax xam ngeen ne fii ay milliers de personnes ñoo fi nekk ménages yi fi nekk bu ñu leen fi dajale woon ñu ne chef de ménage yi nañu fi teew rek fii day fees dell mais ak contexte Covid bi ak Croix-Rouge yi ñu leen xamee nga xam ne ñoo jiitu ci xeex mbas mi vraiment bëgguñu def yenn rassemblement yu bari yi loolu moo taxoon suñu président joxe ndigal ne nañu def ay délégation yu ndaw ñu teew fi nekk teewal seen mbooloo loolu moo tax mbooloo mi demee nii tey waaye bu du woon loolu waa dëkk bi rek dañ fi fees kon dañuy dolliwaat santaat bu baax a baax kilifa yi sant waa Croix Turquie mais sant. vraiment ñun am nañ mbégte trop pour ñëw ànd ak yéen cérémonie bi fii ci Boborel ci turu maire ndax lii dafa am solo mënoon nañ fi ñëw nag am lenn lu ñuy xool wala lu ñuy xalaat waaye lii moom lu baax rek lañ ci xalaat lu baax rek lañ ci xool ndax bënd ndox mu dem ci askan wi ci fii xam nañ ne ñu ko ittewoo lañ loolu dara gënu ko am solo actuellement ca loolu ñi ñu ko indil euh, ñooñu ñoo jar bàyyi xel ndax Turquie ni muy doxee ak senegal benn la ca xam ngeen ne suñu ñaari réew yi ay réew lañ yoo xam ne ci relation bilatérale lu bare baree baree bari ñoom ñu ngi koy séq ci lu baree baree bari ci réew mi suñu dëkk bii ñu nekk muy tuuba nekk dëkk bu special dëkku sëñ Touba am num sante woon dëkk bi sëñ Muntaxa mii nekk fi tey di sañ Touba ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool ci ànd ak wér la waajuram ya fa waajuram ya tegoon seen tànk rek moom fi lay teg tànkam mat ko sëkk kon bu dëkku jullit ñu jóge ci dëkku jullit andi leen ñu mel nii loolu kon ñépp ña ngi koy rafetlu kon maire nee na lii daal lum bég la ndax moom barki démb rek lancé na projet bu mag mu jëm ci ay village ci dëkk bi du yépp nag waaye village yooyu Boborel bii da ca bokk muy ay projet d'adduction de potable ñu war a ñëw fii tëral fii ay tiwo defe naa cérémonie bi defe wuñ ko fii mais dañ ko boole ak yeneen village defe foofu cérémonie bi sëñ Mbay Sàll mu baax mii ñëwoon na ca ndaje moomu ca defe naa liggéey boobu léegi mu tàmbali kon lu mel nii su amee ñu fi war a bënn foo xam ne ndox dafay jóge ah loolu bu ñëwee yokkute rek la ci doon kon li ñu ñaan rekk loolu yépp sotti leneen li mooy fii moom xam nañ taxawaayu ku jiite dëkk bi gis nañ également ni mu àndee ak waa dëkk bi looloo tim lu yombal liggéey bi la maire nee na ci lépp lu ñuy def ndax sëñ Bay heure bu ne ma ngi woote bu ñu toogee ci conseil bi également bu yëkkatee kàddoom kàddu gi yépp day waxal waa Boborel ba bërki démb moo ci mujj projet boobu tudd ay waaye fal yu ñuy maye ci dëkk bi fii di Boborel kenn ëpplewu leen ci te defe naa bi ñu leen joxee li ñu leen war a jox ba pare mu ne ma am na yeneen yu ci des des li desoon aussi dañ ne ko foofu xam nañ ne itte nañ ko kon yow loo bëgg rek lu baax lay doon lu jëm ci population yi ni ko bëggee noonu lañ ko noonu lañ noonu lañ ko koy defalee loolu la sañ Xaadim Fall mii wax léegi junj ak yeneen yi jiitu yépp en tout cas daal li ma leen mën a wax mooy maire daal fa yéene wut fàtte benn yoon Boberel ndax fii xam nañ ne ñi fi nekk ñu ànd lañ ñu booloo lañ ñuy xàccandoonu dóorandoo lañ ca am nañ kilifa am kilifa gi nag moo tax ba tey jii lu bari di ñëw wax nañ léegi yu mbiru yoon mais bu mën nañoo bañ a yàkkamti xam naa yàkkamti nañ ko sax waaye li ma leer ba leer yoon bi dana fi ñëw li andi lii dana andi yoon li andi case sant bi ak poste sant bi dana indi leneen lu jëm ci xale yi lu jëm ci li jigéen yi lu jëm ci lu jëm ci askan wi en tout cas daal loolu moom xam leen ko bu baax bala may daaneel nag danaa sant bu baax waa Croix-Rouge ndax seen jàmbaare lii xam ne moo ñu tee lépp luñ doon def ñu mën koo def niñ ko daan defee muy mbas mii nekk ci dëkk bi ak ci réew mi ak ci àdduna si bi kenn mënu leen ci loolu nag ak yeneen yoo xam ne gis nañ ci seen taxawaay lu mel ni su amee ñoom ñu taxawaay taxawaay boobu ci wetu sëñ Mbay ak Aliou Dia mi nga xam ne mooy secrétaire euh, euh, régional bi euh, région bi ci wàllu Croix-Rouge buñ ci ñëwee war nañ leen sant gërëm leen xam leen ne yéen daal seen projet ñëpp ci war a jàpp. monsieur le représentant de monsieur le maire euh, cher le peuple de Bourbourel je voudrais premièrement je voudrais euh, vous présenter mes excuses pour que nous sommes en retard euh, mais nous sommes ici maintenant et nous sommes tout prêts pour commencer le projet de Puy d'Eau euh, je voudrais remercier à la Croix-Rouge sénégalaise pour nous donner l'opportunité et je voudrais aussi remercier le département de Mbacké de Croix-Rouge sénégalaise pour aussi nous donner euh, la localisation pour faire un projet euh, pour vous permettre euh, accès à l'eau potable. Maintenant, comme le croissant rouge turc, ça fait sept mois que nous sommes ici. Nous sommes arrivés à, 20, à 21er de juillet. Aujourd'hui, nous sommes ici à Touba pour faire notre projet de Puy d'eau. Mais il y, aura, il y avait des autres projets que nous avons fait à des autres villes aussi. Et ça sera continué même, euh, Inch'Allah, avec les autres projets. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour faire ce puits d'eau. Je voudrais vous remercier pour être ici. Je sais qu'il y a beaucoup de soleil maintenant, il faut que nous, nous faisons le pro programme tout de suite. Mais euh, ce que je voudrais dire, Inch'Allah, euh, dans deux semaines ou trois semaines, Nous allons finir ce projet, finaliser ce projet et donner accès euh, pour vous à l'eau potable. Et notre, euh, après notre forage, euh, Inch'Allah, euh, on se croisera encore une fois ici pour finaliser la procédure. Merci beaucoup, mille merci à la Croix-Rouge sénégalaise et comme le Croissant Rouge turc, je vous salue tous. Merci.